boo xasee yëg ci sa ne sëñ Fallou ngi ci yëngu yëgal ne yow bokk nga ca gaañu baax yi ak yaare ñan tànn wa man te guur de grand léegi doonatoo ku ndaw maanaam maanaam sëñ Fallou bu nekk fi bi ci boppam moom sëñ Tuubaa ci boppam mos fa fa Jolof ne sëñ bi a ne leen dama leen bëgg a laaj biir. mais dama leen bëgg a laaj biir. loolu nag moo di. loolu nag moo di. dama bëgg ngeen xam ne man mii. dama bëgg ngeen xam ne man sëñ Tuubaa mii. amu ma amu ma amu ma amu ma rakk. amu ma rakk. aw ma jarbaat. aw ma jarbaat. aw ma doom. aw ma doom. lii ma lii lii fi ne. lii fi ne. ku ko fi wut si. ku ko fi wut si. may sa mag. may sa mag. di sa nijaay di sa baay di sa baay di sa baay. ku ko fi wut si wu ñu gisul dara. ku ko fi wut si wu ñu gisul leen dara. kon nag noonu ko fi wut si bu baax. noonu ko wut si ñun ñëpp. kon nag dégg ngeen ko ñun ñëpp ñoo ko wut loolu. ba njëkkee njaareem gii nag. ba njëkkee njaareem gii nag. ma bind est-ce que ko man. mais moom El Hadj Fallou Mbacké mi bind aw ko ne ko. li ñu tudd li nga xam ne ko tudd li li nga xam ne moom waa bi. ne jaay naa ko jëndee ko ak taalu ba mu jëndee ko def naa ko jaayee nee moom fii mu du ma doom ju bëgg a doon bàyyi a ba. jóg leen taxaw jóg nuy sant Seyxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fàllilu yaay Mustafa yaay Muntaxal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Cheikh fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariku laay alaaji fàllo yaay rasululaay dem nga fa màkka fam nga ni li laay alaaji yaa juboog li am nga nga ni li yàlla hubbulaay fam nga nga ni li bàmba hamdulaay saretu aqiqatul iman alaaji fàllo yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou bay baa def xalifa def alaaji moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappeena moo bi yoonu Makka Madina alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu del siyaare Amadul Makkiyu del siyaare waa Baqiya xabru Tayba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka ba sànni jamra foon wa dem